jërëjëf Cheikh na Cheikh Sadou jaaraama Cheikh na Cheikh Sadou xamdal liman ala udda addaani suma ilaa tay xatil jelaani suuf sedd sa kaw Cheikh Alioune Ndiaye yow mu ñu nandal si tay xatul jelaani bismil ilaahi maa ngi wéy سيصعدني برامي مي يلا كبر بي على في سيبالك ساري أركرا ممزار شالخينا ساليريا نفي باوان Faye Mane nekk benn artiste boo xam ne ku ko xam xamee ko yaraax ku xam yaraax aussi tamit xamee ko Faye Mane nekk na artiste boo xam ne ñun

commencé na rap depuis 2013 mu ngi rap mu ngi commencé rap ci kuréel bu ñu naan def off ngeen tàccul ma waa def off tamit bëgg naa si ñoo def ci man li man. comme ça góor yi maa ngi bëggee def off ndax su ma demee ba nekk MC def off moo ko waral quoi di bëggee sama gars yi cat ba cat ñi fi nekk ak ñi fi nekkul yee di ko commencé si kii la max sam sax laa koy commencé ndax mooy lépp quoi. Exekiller Taylor DDM Tizro yeah all niggas bu mos a nekk def of Fireman mu lay bëggee yéen a def lu tax Fireman nekk def Fireman yeah commencé naa rap mil 2013 yeah depuis 2013 bokk naa si ay compétition yeah am boo xam ne DJ Taf ñuy toog moo ko def maa koy bëggee moom tamit yeah boobu waaw yeah boobu man maa génn vainqueur première ci kaw Dip Doundou gis ak Coco benn booy yeah yeah boobu ba léegi nag maa ngi jël sama temps di job waaw di wër tamit label boo xam ne man doy na ma quoi tamit benn instant yeah yeah yàlla def may dem ba dem ba dem ba 2018 ma daj ci Big Brain quoi Big Brain Studio waaw yàlla boole

jox mention spéciale waaw waaw muñkat la koi parce que sa jëkkër toog ba ay ay quatre heures du matin muy tëdd si des fois la maa ngi dem studio maa ngi dem concert jigéen bu koy muñ kooku wax nañ ko waaw jigéen quoi waaw léegi projet bi moo génn mixtape bu treize titres la mi ngi tudd original Boy Yarakh yeah original Boy Yarakh parce que ñun lu ñu am Yarakh moo ñu ko gënal ñun dëkk dëkk Yarakh ba dee moo ñu gënal dëkk dëkk Almadies ba Dero am na ay ego trip am na ay thème riche na quoi lu ñu laaj ci hip hop yëpp mu ngi si mixtape bi ba pare mixtape dafa ñëwaat pour teg hip hop ci raay yi parce que hip hop bi mu ngi mu ngi change voice voix quoi mu ngi change voix day gis léegi ku def sound bu ko neex ne hip hop waaw def sound boo xam ne mbalax la gën a sax mu ne hip hop nga def beneen sound boo xam ne kenn xamul mu doon nga ne hip hop moo tax mixtape bi dafa ñëw pour corriger ba pare wane waane faayameel mu doon job quoi ok jàppale ko bu baax a baax ci présentation boobu jàppale ko léegi yaakaar naa le moom dootuñu ko fàtteeti ndax euh, date bi moom euh, suñu date la ndax euh, def nañ ko daaw defaat ko ren ren mu tombé ñu génnee suñu mixtape def ko ci format clé USB mu nekk 13 titres ànd ceeg waa Big Brand Music job bi na métti tamit d'une part tamit neex na quoi ndax job ñoom neex na lool. waaw ndax euh, sama artiste ba mu fay dem dem na fa ci jàmm ah, ñoom liggéey nañ ko ci xol bu sedd guy ndax euh, boo xoolee bit ak euh, son yi ni ñu ko tegee lépp ni ñu ko mixé masterisé ko wax dëgg fa yàlla képp ku déglu hip hop parce que boo dégloo lii nga xam ne teg nañ ko ci yoon quoi. yes waa ah, ñu def ko de format clé USB. Ah, ñu bëgg 5000 francs. Mhm. ñu bëgg waa Yarax yëpp ñu jàpp ci ko. même boo ko dégluwul sax jënd ko mooy nga soutenir benn doomu yaraax bu dëkk yaraax di fayital yaraax lépp bu ñu dégg yaraax ngeen jënd ko yéen ñëpp def ko seen yëf ko Mami si tati sadana